ak prostate bi nga xam ne dafa def prostate ñaar moo ci bi fermé wu ak bi nga xam ne dafay ouvert bu ñu njëkkee ci feebar bi nga xam ne mooy mauvaise haleine mauvaise haleine nekk benn feebar ba nga xam ne xeetu gémmiñ la mais nag ñu bari xamuñu ne jógewul ci gémmiñ gi ca intestin yi lay génne ba tax na ñu bari dañuy am mauvaise haleine dem bay buddi seen bëñ yi yaakaar ne xet gi ci bëñ yi lay génne déedéet xet gi génnewul ci bëñ yi ci mbaq ga lay jóge wala muy génne ci intestin yi muy ci butit yi ndaxte da ngay gis ka nga xam dafay amee mauvaise aleen di borosu guddi borosu bëccëg borosu ngoon mais saabu borosoo ba pare dafay mel ni xet gi dafay gën di génn xetu gémmiñ am nañu koy amee ay ati at du ñàkk toppatoo sa bopp du ñàkk topp bu boros sa gémmiñ du salte loolu feebar la ci nit ki estomac dina joxe mauvaise haleine muy góomu mbàq ba nga xam ne dafa yàgg ci nit ki dina dem bay jox nit ki mauvaise haleine lekk te doo borosu guddi dina jox nit ki mauvaise haleine maanaam lekk ba pare noonu rek tëdd bañ a borosu dina faral di jox nit ki mauvaise haleine yeewu noonu bañ a borosu ñu koy def bari na yeewu noonu rek dem dina faral di jox dina wax faral di jox nit ki mauvaise haleine wala nga ne nelaw nelaw bëccëg noonu lekk ba pare añ ba pare noonu rek nelaw bëccëg dina faral di joxe xeetu gémmiñ waxoon naa la tamit nee naa la estomac bu yàgg dina dem ba jox nit ki xeetu gémmiñ hépatique B bu yàgg ci nit ki dem ba foo am di am ay jafe-jafe dina faral di jox nit ki mauvaise haleine kon loolu mooy li nga xam ne mooy mooy mauvaise haleine waaw bu ñu jógee ci mauvaise haleine dañuy ñëw ci feebar bi nga xam ne mooy prostate ndaxte ñaar yooyu lañ leen bëgg a tënk rek donte temps bi bariwul prostate nekk na benn feebar ba nga xam ne ñi ëpp ñi muy dal fi mu toll nii mooy waa troisième as waaye nag li ci ëpp léegi dafay dal xale yi ñaari façon prostate moo am prostate bi nga xam ne dafa ouvert nga xam ne nit ki su bëggee tuur ndox dafay bala muy àgg ci toilette bi tuur na ndox te du ko yëg wala boog du mën a maîtriser tuur ndox bi beneen ba mooy prostate bi nga xam ne dafa fermé wu nit ki dafay bëgg a ndox waaye du mën a tuur ndox boobu nag risques yi ci nekk moo gën a garaaw bu dee prostate bi nga xam ne dafa fe dafa ouvert nga xam ne nit ki dafay taxaw fi mu taxaw di tour ndox du ko du ko mën a téye wala bu jegee ci duus bi dem tuur ndox wala li muy tuur ndox dafay jegeloo maanaam bu dee dina jóg ci guddi gi ay yoon yooni yoon di tuur ndox maanaam li muy tuur ndox dafay jegeloo trop trop trop bu tuuree léegi ndox demaat tuuraat ndox loolu mooy prostate bi nga xam ne dafa ouvert prostate bi nga xam ne dafa ferme wu képp ki ko amee maa ngi lay ñaan ngir yàlla war a suuli bur ko di sonde wala boog boo koy sonde nga dem ci ku mën a sonde lool mu sonde la ndaxte li ëpp ci nit ñi fi mu toll nii kuñ ci sonde gàññan la ñi ma xam ñépp ñi nga xam ne dañoo amee prostate ñoo tuur ndox ñu sonde leen pour ñu tuur ndox bu ñu leen sondee jël seen awra dugal ci weñ boobu noonu dafay bëtt dafay jam ba nga xam ne ñoom bu ñu roppe weñ bi deret rek la ñuy génnee li ëpp ci nit ñi fi mu toll ni ñoom ñu ngi ñu ngi leen di sonde waaye dañ leen di gaañ li ëpp ci nit tamit ñu ngi def fibroscopie dañ leen koy def waaye mettit ba tamit dafay jéggi doy bañ jógee fa am problème mu mbàq wala dara kon médecins yi nañu xoolaat ni ñuy ni ñuy ni ñuy defee yooyu mais képp ki nga xam ne amee nga prostate bi nga xam ne dafa fermé wu boo jëlee garab gii nga xam ne mooy maawul xayaat da ngay tuur ndox te kenn du la sonde muy garab yi nga xam ne mooy nekk ci butéel yi yow mi nga xam ne danga amee prostate bi nga xam ne dafa fermé wu boo koy jël da ngay ndox te doo am benn jafe même ki nga xam ne dafa amee prostate bi nga xam ne dafa ouvert buy jël garab gi dafay limité tuur ndox bi ba muy tuur ndox normal te du am benn jafe-jafe kon nag képp ki nga xam ne mu ngi laaj fu ñu nekk ñu ngi nekk Médina rue 11 angle 18 en face stade Iba Mar Diop foofu lañ nekkee ci dakaar bu dee jurbel ki nga xam ne moo nekk Touba wala nekk Kaolack fu mu nekk mën nañoo fekk dëkk bu ñuy wax jurbel nekk ci euh, euh, benn dëkk bu nekk ci Diourbel ñu koy wax Nebbe nekk ci diggante Diourbel Diourbel ak Daaru Ténéfoun maanaam moog Diourbel 4 kilomètres la 5 kilomètres moo génnee Njaareem jëm Kaolack dëkk bi ngay njëkk a jot ci kaw tali bi foo laajte Nebbe ñu andi la ba ba sunu kër. yow mi nga xam da ngaa nekk ci côté boobu moo xam Bambey xombal foofu yaakaar na moo lay gën a jege ba jàpp kaw la kon maa ngi leen di ñaanal jàmm di leen ñaanal weeru kooru jàmm dañoo gëjoon a gisante nga xam ne képp nag ki nga xam ne yittewoo nañu mën nañoo woo ci 77 630 46 78 77 630 46 78 wala nga woo ñu ci 76 478 36 98. kon mbokk yi ñu ngi leen di ñaanal jàmm di ko ñaanal ñëpp di leen ñaanal weeru kooru jàmm wasalaamualeykum wa rahmatullah